semaine ba la ñu génne mu bëre arène nationale daan fa jël bu gaaw muy Mbacke fay nok nekk écurie Rock Énergie ne ci keppaaru Modou Lo bokk si ay bras droit wu Modou Lo le roi des arènes ah. ñu koy nuyu di ko ziar roi des arènes di nuyu waa parcelle bi yëpp te ñu fekk la fi nga xam ne nii moom mooy ci Parcelles Assainies ci place Assane Fall Global Textile maa ngi lay ziaree Mbacke Faye waaw Babacar gannaaw ma sant yàlla julli si yonent bi sant sama ñaari waajur sant suma sëriñ Baye Jili di sant suma sëriñ Baye Jili Mbacke borom léegi-léegi maa koy sant bu baax di ko gërëm di santaat suma sëriñ Baye Jili Mbacke borom léegi-léegi maa ngi koy sant suma ñaari waajur bu baax di la nuyu sa caméra du nuyu Assane Fall mi ma fekk fii tey hmm. waaw di ko nuyu bu baax di nuyu suma waa dëkk waa ceeb waa ceeb laa dëkk waaw maa leen di nuyu bu baax waa ceeb di nuyu waa parcelle 1 ba 26 rawatina gox bi ma dëkk muy unité 12 waaw di siyaar ñëpp di bëgg ñëpp di nuyu sama sama sama papa sama lépp Papa Ndiaye maa ngi koy nuyu bu baax waaw Papa Ndiaye benn maa koy siyaar bu baax combat bi da cee daj ay coono yu méttee méttee métti wallaay du nuyu Serigne Ndiaye doom mer Wali Ndiaye yëpp Ndiaw Koddu xam du nuyu Ndiaw Passemane Dieng seen yaay Wali Ndiaye maa ngi koy siyaar bu baax lépp moom la wallaay moom mu utal licence isel ma 40 ma lépp lépp daal bu ma demee ba toll fii ci làmb moom la waaw di sant suma waa écrit waa Rock Énergie yëpp maa leen sant. am na solo mu mel ni suma la déggee nga tudd ceeb ne maa ngi sa sa waa dëkk ceeb kon yow Bawol Bawol nga. bool bool bu mag laa ah. bu ngand si yaay si papa ah. waaw maa ngi dëkk cepp diggante cepp ak lambay mexe yeneen dëkk yi xam ma turi ku juum daal ay altu ndangal mag nderab reefar bambay séeréel bambay taax xam ma maa ngi waaw maa ngi leen nuyu mbaaba garage waaw dëkk yooyu maa leen di siyaar ñoom ñëpp rawatina sama waa dëkk muy cepp man doomu cepp cepp laa waaw cepp laa man cepp laa saf sap fii laa juddoo parcelle laa juddoo laa yaroo yàlla laa màggee mais sama yaay bool bool la sama pap bool bool di siyaar samay nijaay ñoom Pape Gueye gars yi ñoom ñëpp ñoom Adama Niang Jibi Ndiaye ñëpp maa leen di siyaar waaw sama xarit maa ngi bu baax waaw. Papa Ndiaye maa ngi koy siyaar bu baax a baax moom borom baax la euh, tey fi ma la fekk nii muy place Assane Fall sa diggante ak Assane suma su la si laajoon loo may wax. maanaam sama diggante ak Assane mun naa ni sax mënu ma ci wax quoi parce que maanaam gis ñëpp mbër yëpp dañuy ñëw ci moom mais moom ni mu mel ak man yaakaar naa mel ko benn mbër Assane ma ak moom maam jamono ji muy taabul la bi muy yor taabul nekk fii sama koñ ci buntu koñ fa la doon lal taabul jaay mètre trois cent wallahi azim ba tey suñu borom xéwalal ko affaire lii yàlla gën a yokku Assane man sama xarit mun naa ne sama sama ñoo bokk ndey ak baay wallahi daf may gëj a gis sax xam ma mais bu ñu gisantee day mel ni tey lañ gëj a tey lañ waaw tey lañ gën a gisante waaw lay mel ni lu bees lu bees si man wallahi wallahi waaw maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm. di sant global textile bi yëpp maa leen di ñoom ñëpp daal. parce global textile nag léegi moom macha allah na ko gars jàpp bàyyi ko xel leen di moom mooy nekk sama sponsor ci arena hebdo bi léegi moo koy xel moo koy doon du mën a ñàkk waaw <laughs> mu mel ni koo xam ne xam nga ko moom ba muy jaay mètre trois cent di lal taabal defe naa ne boobu ànd moom du ànd bu bees di itam ànd bu ñu ànd bu yàgg la te defe naa mbay jiy fay noonu na Youssou Ndour ànd bu yàgg bi defe naa ne am na solo trop liy waral nag mu yàgg mooy defe naa ñaari ñi ko séq sàmm ko lal ko tamit ci ngor ak dëggal ak jubal ah. lu loolu mooy yoon ko parce que ànd maam dafa war a dëggu maam nit booy ànd ak moom man samay xarit ñi may doon àndal ba ma nekkee xale ba léegi ñoom lay àndal ku ci mel ni Bokar Pape njaago ñoom dëx yenn gars yi Jibi Genz Jibi maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm combat bi dajee daj ay coono yu métti Njaga Taban Bas Kapo Bañes Laurent sama boy booy ñëw sama booy koñ yi ku lim juum bu ma nee Laurent rek nuyu naa um Ousseynou Mbaye booy yëpp waaw maa leen si waaw. moo la ci dugal. waaw lamb li ma ci dugal mooy maanaam damaa ñëw si dëkk ba fekk ñu ne ma sama papa da bëree. waaw bool nee ma sama papa toog na ay at yi yoo xam ne kenn mësu koo daan ci dëkk bi barki dem rek ba ma demee dakaar benn paam mi ma ko doon wax Baye Jib Ndiaye ñu naan boo doon doy sa papa du ma ne doo laal suuf waaye du gaaw ndax sa papa nekk na ci dëkk bi foo xam ne kenn mënoo man sama papa mbër la woon. xëy na nag bëriwul arène quoi mais sama papa mbër la woon waa daan na bëri ci mbapati bu baax a baax waaw. daal maanaam deret ji moo la tooñ. waa deret ji moo ma tooñ deretu mbër ba pare samay ma judd fekk samay nijaay bëgg làmb man sama nijaay Pape Gueye Eumeu lay àndal waaw moo ko Eumeu ñooy ànd guddi ak bëccëg. sa nijaay sama mu bokk sama yaay benn baay moo ko Eumeu Sène ñooy ànd guddi ak bëccëg wallaahi kon man làmb ji maam làmb nekkul ci man loo xam ne hasard la. waaw lu ma dond la. dama ko doon ci nijaay doon ko ci papa. te loo doon boo ko sàmmee mu dëgër. wallaahi loo doon boo ko sàmmee mu dëgër wallaahi te dinaa ko gën a sàmm incha allah waaw. bi nga duggee ci làmb en tant que xale doonte doon nga ko ci noon nga ko waxee waaye nga juddoo parcelle yeewu fi ku fi yeewoo xam na ne si yéen seen génération di nga fi tombeek ñoom Modou loo ñuy bëri ñoom Papa Sow ak ñi leen jiitoon ñoom Ouza ñoom Khadim Gadiaga bëri woon nañu ah su ma limee dinaa juum ñoom Mathia Pereira ñoom it nekkoon ay mbër yoo xam ne parcelle gii lañ dëkkoon yaakaar naa ne fi lañ dëkk sax looloo am du yaakaar naa looloo li am euh, ñooñu dafa am koo ci gisoon bëgg ko di ko roy di ko topp ba xëy tey nekk dugg ci lamb à boo ko doonee. waaw ñun Modou moo tax ñu bëgg lamb Modou moo tax ñu bëgg lamb Modou Lo mun naa ne bi ñuy liggéey marché liggéey atelier kundul boobu mu yaakaar naa mi ngi bëri ay combat ndaw boobu ma doon boy bu ndaw mais saa bu doon dem entraînement dama koy topp toog di ko seetaan dem école see toog di seetaan nekk ay booy hmm. waaw dem benn jour ma gis yenn gars yi foofu ay ñoom këll gi gars yi ma waaw ma naan ñii ñii kañ laay mel ni ñoom waaw manaan ñii kañ laay mel ni ñoom hmm. wallaahi toog ñu di leen seetaan waaw looloo tax ñu bëgg parcelle moom ku fi judd hmm. da ngay bëgg làmb parce que ñun lamb tey buñ ñu demee ba ñu parcelle ñu ci làmb grâce à Modou Lo waaw Lo am na lu mu def ci làmb quoi am na lu mu def ci parcelle bi waaw moo tax ñun ñu bëgg làmb. Modou ban atelier ban nga ko doon fekk nga lu mu doon liggéey. ma soudeur métallique waaw soudeur métallique la doon liggéey foofu man may liggéey menuisier bois waaw nekkoon apprenti bi waaw nekkoon apprenti nekk booy bu ndaw li ma lay wax ni xaw na yàgg tuuti nag waaw boobu maa ngi doon booy bu ndaw waaw boobu yaakaar naa ma sax ay ay 17 ans yooyu waaw amaguma sax ay 17 ans yooyu laay faral am rek wala 18 ans affaire yooyu. xale nga quoi xale bu ndaw la boobu xale laa. am na solo léegi Modou moo tax nga bëgg làmb daan ko topp ci di ko seetaan muy contact ak yooyu ci écrit bi bi nga daan seetaan muy contact loo daan gis ci moom boobu. waaw daan gis ci ñoom bëri de Modou boobu ësoon na ës boo xam ne pour nga daan ko problème la gars yi dañ mi ngi doon gaay gaay di ko woowee kirij ko daan woowee ndax daan yenu rek ah. ay mbapatam yu bëri fii nii daan yenu ay mbapat yoo xam ne man maa ma doon dama doon dem fii jaar ci suuf baas yi toog di seetaan daraan yéenu gars yi wër na yàlla di dóor ci suuf. billaa waaw gars yi di ko woowee kirij boobu Modou jamono jooju kenn mënu ko woon daan daa woo koŋ waaw kon daal su ma la déggee léegi sax Modou lam daan def boobu defatu ko léegi ci wàllum bëre waaw parce que léegi poids bi moo tax mënatul lu bari mbër bu mag te poids bi mais Modou ba léegi ba léegi nii nag dafa mën a bëre mën bëre moom kenn du ko naataable mais poids bi xam nga ak tamit ak waa niveau bi ñu topp ak nit ñi lay topp yow bëreelatoo sa bopp Modou mbër da nga naa wër ndomb sa yaa ngi ci ñaata combat ci arène wala balaa ma ñëw sax euh, ci ci ci say combat ñu ngi ci Modou mu jël combat bu diis combat bu ñëpp ne daa diis risque la jël muy Ama Baldé bu Pikine. non risque amu ci Ama champion la Modou champion la Ama champion la Modou champion lamb moo leen boole dañoo war a bëre ñu war a bëre Ama tamit xale la day prouver dafa prouver mu lu tax Modou jël ko. Modou tamit moom champion kenn du ko naataab di ñaanal Modou rek suñu ko mën naa jaay Ama bëri. waaw mën na ko mën na Modou moom wax dëgg yàlla moom bëreem foo ko nat weesu na ko mais tamit Ama champion la. foo nat bëri Modou weesu na ko nga wax waaye dama ne est-ce que bëreem musut bu Ama. waaw bëri Modou musut bu Ama bu ñu waxalee dëgg rek te yàlla tax. foo ko teg da ko da nga ko maanaam ci nan la ko sutin da ko dàq bëri wala lan la ko ëppale ci biir bëri. non li mu rek. li mu wane Modou li mu wane Ama li mu wane bokkuñu quoi bëree yi ñoo bokkul wax dëgg yàlla dëgg rek moo ne xel Ama moom champion la champion la ndaanaan la Ama fi mu yegg nii nii jom ak fulaam ak faydam moo ko fi yeggale waaw mais tamit dafa mën suñu borom Modou defal yàlla defal ko ndam rek waaw. am na solo yow kañ nga dugg arène. man ay yaakaar naa ay kan jàppatuma ko nag de mais sama premier combat arène Aziz Ndiaye moo ko tëgg lamb banlieue la woon esat fee géejawaay géejawaay. Mhm. yaa ngi ci ñaata combat. maa ci huit combat. mais yow kon sa carrière doxul lu bari de. lu waral sa combat yi yéex. waaw combat mooy mbër bu ndaw rek nekk mbër bu ndaw chaque saison benn combat ngay bëri loolu dañ cee sonn dafa yéex huit combat wallahi am six victoire ba deux défaites waaw. kan ak kan la Baaba Maal moo ma daan ak boîte vocale. Baaba Maal men mu bari xorom ma. waaw ak boîte vocale. ak boîte moo la dugal daan <laughs> waaw. daan waaw ñooñu mun naa ni sax ñi ma daan ñëpp wallaay maa leen mën mal neex ta man de non wallaay baab mal maa ko mën bu ñu tëjoon fii ci néeg nga xam ne mais boobu dafa am nu mu demee boobu dama oon blessure mais xam nga victoire jàmbur mënoo ko saltel la moo tax ku daanu ne dama am blessure dafa ma daanu dafa am loo da ngaa gaañu ba ñëw takk ngeen di bëre kon kay jëratul layal borom jom moo mën loolu kon kay jëratul tut gaañu nel rek baab maal ma daan yem ca wala baab maal moo ma daan waaw baab maal moo ma daan waaye ma yem foofu Pape Mal daa amu fit bu yàggul dugg na seen écrit am na fa defet waaye ku ne xam ne du ragal mook jegaan dafe mook kële euh, boy sin waaw waaw di ñaanal tamit jegaan suñu borom defal ko ndam Lamine seen di ko ñaanal yàlla no vieux top maa ngi ñaanal ndam lu wér képp ku am mbiru Rock Énergie ñun dañoo yore ci ay keppaar ñoo xam ne jegaan Mor Kaana Lamine Sène ah Mor Yigini gars yi waruñu ko fàtte ci làmb Mor Yigini daa bokk ci lamb Mor Yigini douze combats lim dëkk mbuur nag moo tax gars yi duñ ko bàyyi xel mais moo liggéey ni man keppaar yooyu laa yeroo keppaar yooyu ñooñu laay contactal ñooñu kuy contact moom mënoo ñàkk man bëre ay vieux di leen ñaanal suñu borom defal leen ndam parce que combat yi dañ ci sonn waaw. yaa ngi ci euh, sa deux yooyu nga wax Baaba Maalik boîte vocale ñoo la daan bërki dem ñu jox la benn combat spécial yaakaar na ne arène nationale jéey seen joxoon la ko nga bëree daan ki nga doon bëree di kan euh, kii nu mu tudd Petit Ba bu Caaroy ngi koy encouragé di ko wax làmb noonu la. combat bi lu ko gaawal. waaw li ko gaawal mooy damaa entraîné Papa Ndiaye dafa maa teg ay coono yu métti Papa dama doon entraîné loo wallaahi ba mooy entraîné damaa entraîné ba feebar entraîné hôpital damaa entraîné ba feebar combat bi ñu bëri dañoo waxoon sama boo dañu doon combat bi Laurent da doon combat bu dee kiiwul dañ koy reporté Papa Ndiaye dañ combat bu desee 10 jours day bëree bu feebaree sax day bëree parce que am na foofu xam na li ne si man. waaw moom moom xam na li man liggéey na parce que damaa daj ay coono yu méttee méttee méttee wallaahi asi ma su ma jugee ci pa Papa Ndiaye Pambay damay dem mu teg ma ay coono Pambay sama papa sama lépp ñun amuñu ku dul Pambay waaw. entraîneur bu mag la de. wallaahi te ñun dañ ñun ñun dañoo bokk si maanaam ñi war a dimbali Pambay ñun dañ cee bokk muy mën ak sama morom ñun Pambay dafa maanaam dañ ko war a defal loo Pambay mérite mérite na sax ñu tabaxal ko kër jox ko Pambay mérite na lépp si ñun. parce que day sonn ci ñun. yàgg naa Rock Énergie de. wallaahi Azim Pam. mu sosoo ba tey moog Rock Énergie. ku ko xam-xam ko Rock Énergie mais damay ñaan ñun mbëri ndaw yi ku ci muy mën ak sama morom muy ñoom Lamine seen vieux top jegaan gars yi ku ci suñu borom njëkk a sottile rek ngalawaay bul fàtte Pambay ngalawaay dimbali woo Pambay dafa méritoo dimbal parce que sonnul tamit ba nit ñi di ko ñaanal dimbal sonnul sonn boo parce que yàlla nga koy suturaal. mi ngi am ni mais dafa maam maanaam. da ngeen war a wan ko ñun li ngay def si ñun dañ la koy jéem a delloo. waaw dafa mérito loolu dafa mérito ndimbal maanaam moom dafa mérito la parce que dafa da ko liggéey foofu ci Rock Énergie moom dafa liggéey loolu Pambay ci Rock Énergie parce que tamit dafa champion bu ne génn na fi tey champion yi nga fi dégg ñëpp Pambay ñi mu génnee ñëpp bëri na Garga Mbossé Pambay ko génnee Modou Lo ci loxo Pambay la jaar Zos ci loxo Pambay la jaar Pambay dafa ay champion yu bari la la dajale. li gën a jafe mooy entraîneur bu formé ay cinq champion te Pambay da ko def fii entraîneur boo fi gis benn champion rek la am Pambay ay cinq champion yu fay ko ay millions la am. waaw mu formé ci loxoom waaw. am na solo loolu am na solo defe naa kon entraîneur yi jar nañuy bàyyi xel leen ci boole parce que ñoom ñooy topp mbër yi ci xale ba mbër mi nekk dégg daal yi am na solo léegi suñu continuer euh, daan nga ki nga xam ne moom mooy petit ba léegi euh, lu ne sa xel. waa sama xel li ci ne mooy man di bëri samay morom rek. ñan say morom. bëri nañ ay Jacob Balde samay morom lañ ñëw ñu bëre maa ñoom làmb la. Jacob neexul a bëreel de. non loolu mi ngi suñu kanam. waaw a bëre de. man du ma cuune. keppaaru Ama Balde la yeewoo de. Modou Lo fel la. mu ngi parcelle de moom loolu de am na moom. ku dàq bëre ci fii. fii ci actuellement ci làmb fi dàq bëre. laaj naa la ko. loolu moo fi dàq bëre. loolu gars yi bañ ko mu nangu moo fi dàq bëre. foo teg loolu. fi ma ko teg mooy man dama koo xam. lu bëri ak ay mbër daan leen ak bay mbër daan ko. ñëpp mbër yëpp ay champion lañ mais Modou Lo champion la Modou Lo champion la ci biir. Modou Lo dàq bëri Balla Gaye nga a wax yow. Modou li ma gis man sama gis-gis xam man nit ku nekk ak gis-gisam. dama lay laaj dama ne ndax mu dàq bëri Balla Gaye. man man moo ma dàqal bëri la ñëpp. mu dàq bëri Eumeu Sène. waaw moo moo dàq bëri ñëpp. bàyyiwoo kenn daal bàyyiwuma kenn. mais ñi ko daan nag Balla Gaye de daan na ko. ko man Baaba maa la ngi nii moom a daan te leer na ma man maag moom dajee di moo doo man Bombardier mi ko daan moo mën Balla mi ko daan. yàlla moo leen dàq a bëri ñoom ñëpp mais lamb lamb dafa am lu mu laaj lamb dafa lu mu laloo dañ ne lamb ndax lamb yow kese bëree woo hmm. comprendre nga lamb dafa am ci biir ay affaire yoo xam ne ay mbese-mbese yoo xam ne gars yi. yaa ngi wax kon moom buy daanu du andi mbese-mbese yooyu. da koy andi kay ah, da koy andi mais tamit. njëkk a jóg day am tamit tey tamit yàlla tamit day ñëw ànd ak ki nit waaw nit moom yàlla day ñëw tey da ngay def lépp sabab lu jaam xam nga jaam sabab lu la def li ngay def lépp suñ borom ñëw may kale waaw. mais bu dul Jacob Baldé sa xel ci keneen ku mu dem ah? sam bëri nañ booy samay morom rek samay morom Babacar xam nga làmb ji fay bu ma taxaw fii di lim samay morom du jeex ñi ma war a bëreel bëri nañ gars yi nañ ñëw ñu bëree man xale laa damay entraîné. man boo ma xoolee barke alxuraan lundi laa commencé entraîné. lundi. billaay laa ko sax démb dama contacté woon barki démb dama contacté woon. ñoom Modou ak uh-huh. ma di ñaanal tamit vie top borom defal ko ndam. actuellement ñu ngi lay pour combat. ñu ngi may contacter pour combat ñu ngi wax. ñu ngi lay proposé yaa. Euh, non proposé guñ ma adversaire mais ñu ngi wax daal. waaw am na promoteur yu bëgg sama combat loolu dama koy bàyyi sama loxo ménagère as. Assise moom moo yor loolu maa ngi koy bàyyi la mu Assise Papa Ndiaye ñoom lu ñu wax rek loolu la quoi waaw uh-huh. sant suma xarit yi nag ku ci mel ni Bokar maa koy sant bu baax ñoom Laurent booy maanaam booy dañuy déglu na Njaga Taabaan aw ma fayam Bas Capo Guèye Tamsir Mati Ndiaye suma jigéen Kobal Mendy maa koy sant. Papa Sow Siteu. waaw Papa lamb la lamb la rek hmm. waaw lamb la. ju doy waar la de. waaw lamb ju doy waar la moom lamb ju nar a neex lay doon moom. Hmm. waaw lamb ju nar a neex lay doon. fu muy neexee. waaw fu muy neexee mooy fu ko yàlla tuddee rek. ñoom ñaar maanaam loo gis. waaw li ma gis mooy lamb Papa Sow entraîné li mu war entraîné Siteu entraîné li mu war a entraîné hmm. waaw. wóolu ngeen Papa Sow ak Siteu. waaw man wóolu naa Papa Sow. xalaat nga ndam li ñu si personne xalaat nga loolu. waaw mun na waaw xalaat naa ko kay lu mën a nekk la hmm. waaw. dafa mbër jël na Liss Ndiago. waa tafaa di ko wax mu gën a yokku liggéey bi rek parce que ñun ñëpp ay mbaram lañ ay xale lañ Liss Ndiago ak Tafa Mbeur maganteewuñ dara Tafa xale la Liss xale la ñun ñëpp ay xale lañ ay jeunes lañ yoo nekk si làmb di liggéey suñu gañpee la waaw di ñaanal Tafa Mbeur yàlla may ko ndam. Liss ne day rocci put de. waaw Liss du rocci put kenn Liss moom saay matul mille kees li ko rëg-rëg di waxee Liss matul mille kees booy seen coow làmb lañ yor rek di wax di ratatati nii rek. Liss da ngaa jàpp ne daa bëri wax. barki alxu waay yow boobu kay booy macha allah dafa mel ni rajo la ñuy ndekkee <laughs> yow mala sum waay booy côté boobu noonu du ma tudd tur mais booy côté boobu booy mooy booy bi. Liss de jàmm gën la dëgg. waaw mooy loolu moom moom rajo la ñuy ndekkee man ki ma bëgg a bëreel ba léegi bëreewu ma ak moom. Arafas wallaahi Arafas buñ ma ko buñ ma ko joxoon bu bu ma jëloon barki alxuraan karim mu corrigé ko. Arafas neex te corrigé de billaay Ada Fass li ma waxoon xam nga bàjjil Ada Fass min na parcelle de ara rek dañ ma jëloon benn interview temps ma leen bu ñu tegalee mis keesu mbisit ku daan ku daan yëy billaay du yëy benn Ada Fass maa ko daax a bëre maa xëpp doole Ada Fass lim bokkuñu sax maa ngi moom wallaay bokkuñu Ada Fass dama koy fekk ci àll bëri ay mbapat di bëri tournoi mbër la de man damay dem ci àll bi di bëri ay mbapat xam dem ci àll bi di bëri mais dem di jël moo jafe dem ci àll bi tur jëm naa jël dem naa bëri ji dafa yomb tey mun nga takk sa ngem yow ba jël yow man musuma jël jëluma moom it musul jël. lu leer. man leer na ma parce man damay dund làmb simple. la moo tax nga jékki-jékki rek dugg fii bëri ki dem daan Tapha Mbeur seen euh, Tapha Mbeur di mbër bokk ci mbëri parcelles yu bu ma jëlee dootul dugu parcelle barki alxuraanu karim barki Baye Jili Mbacke bu ma jëlee dootul dugg parcelle. est-ce amul ci làmb Ada Fass bi jël Tapha Mbeur Tapha Mbeur du yoonu du yoonu làmbam Tapha Mbeur waru woon jël Ada Fass bu ñu ko tegoon ci doon yoon dans les normes Tapha Mbeur parce que Ada ah waaye soo amul ay six a xaw ma cinq. bëri na mbooloo de. waaw mbool loolu. mën naa bëri nag. Liss Ndiago ngi ni jël Tapha Mbeur ñaata combat la am Liss mënoo ma génneel six combats am yu leer wala cinq combats am yu leer mais affaire yi léegi xamalal la promoteurs yi ñoom tëggatuñ mbër bi moo ëpp ba kii wala wala na dañuy xool ñoom mbër bi nga xam ne rek am na mbooloo am na tur ñoom dañuy sàmm seen xaalis mais buñ ko tegoon ci palmarès ci cadre palmarès Tapha Mbeur du bëreeg Arafas du bëreeg Liss Ndiago parce que Tapha Mbeur dafa dafa jóge ci ay maanaam Mambala la daan Mambala ko daan juge fi daan Aliou Seye de Aliou Seye kon Tapha Mbeur yoon loolu du yoon làmbam waaw bu ñu ko tegoon ci yoon loolu du yoon làmbam Tapha Mbeur waroon jël Ada Fass kon da ngaa jàpp ne risque la def moom. risque la def mais Ada moom nag ni ko Tapha Mbeur mayee loxo moom moom nañu may loxo ñu bëree ba Ada Fass defu fi dara lan la fi def. ci lis ci lis mi risque la kon. lis du làmb xale amul risque xale entraîné rek yëg sa bopp entraîné bu baax làmbu xale amul risque risque amul ci làmbu barki alxuraan karim affaire yi liggéey la rek ku liggéey fayeeku. nee nga koy ñaax mooy na liggéey. nee dañoo ndékki rajo waaye ñu ngi lay seetaan de nga lay seetaan. xam nga Laurent du ma wax si moom wax dëgg yàlla kooku moom du ma wax si moom. ci mbër ci làmb ji la bokk. non non kooku moom du ma wax si waaye ñooñu dañu ay mbër. Laurent du mbër. waaye kooku day mbër si moom ah am lu may wax si kooku day mbër mu bëree comme ni nga bëree ci arène nationale daan. nono kooku moom wax dëgg yàlla man man moom man moom si man du sa du mbër ko wax damaa jàpp ni benn comédien buy la rek mais wax dëgg yàlla kooku du ma wax si moom sax booy moom wax dëgg yàlla du ma wax si ma jot wax si ñoom sax waaw wax dëgg yàlla booy moom wax dëgg yàlla du si ñoom quoi. looy tàggoo. waaw li may tàggoo mooy di santaat yàlla rek. Mhm. julli si yonent bi sant suma ñaari waajur di sant suma sëriñ Baay Jili Mbàkke mhm. maa ngi koy sant bu baax a baax a baax di sant suma waa dëkk mhm. waa ceeb maa ngi leen santaat di santaat waa ceeb bu baax waaw waa ceeb maanaam man doomu ceeb ceeb laa te dama bëgg ñu jàppale ma waaw te gars yi ñu ngi ciy jàpp sax mais dama bëgg ñu gën a jàpp waaw di sant waa parcelle 1 ba 26 rawatina gox bi ma dëkk mi inte 12 di sant sama ñëpp sant sama xarit yëpp di sant yaay Wali Ndiaye papa Ndiaye wallahi asim kooku amu fayam yaayam Faati maa ngi koy sant bu baax sant famem ñëpp waaw maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax di sant suma mag Babacar Dia maa ngi sant bu baax waaw di leen sant di sant Ali Taban Ali aw ma fayam Ali Taban maa ngi koy sant bu baax a baax wax di yàlla da ciy jàpp da ciy jàpp Pam Ndiago suma xarit xam nga di sant Bokar waaw gars yi dañ ciy jàpp waa koñ bi ñëpp Mam Ngor Mam Ngor maa ngi koy sant bu baax a baax a baax borom Bambey waaw ñëpp rek ku lim juum wala doo matal waaw ku lim juum di santal ñëpp waaw sant naa boo yëpp waa koñ bi ñëpp waaw waa jaxal na ma gars yi na waa jaxal na ma maa leen di sant. jaxal na ma mbaa wuur naa sant. non ñoom jaxal ba mu jax sama combat bi amul luñ ci jaxalewul kontaan ci man de maa leen di maa ngi ziar ñëpp. di santaat Assane Fall tamit borom global textile maa ngi koy sant bu baa Babacar yow it maa ngi lay sant ndax lii yombul quoi tey wax dëgg yàlla yéen a ngi. ñun ñëpp lañ fi nekk. waaw wax dëgg yàlla yéen a ngi dox ci mbër yu ndaw yi noo xam ne xam nga xeebu leen xamu leen mbër bu mag ak mbër bu ndaw xamu leen mbër bu fay million mbër bu fay cinq cent mille yéen ngi ciy jàpp di leen ñaanal yàlla li ngeen bëgg rek suñu borom defal leen jàmm waaw mooy loolu